yee eh, gars yi xibaar dernière minute ñetti xibaar yoo xam ne ni bëgg naa ngeen partager ko jëm ci vote yi waaw pour waa Kër Massar yi nga xam ne dañ leen a empêché woon pour ñu voter ñu ne leen mënu leen voter foofu noonu seen lieu de vote yi solution am na partager leen ko massivement ñu ñu war a jot jot ci ñu nga xam ne voté guñ ñu jot ci waaw temps amatul te bu ngeen ci jotee bu leen waaj jug leen ngeen dem solution am na am ngeen fu ngeen mën a bu voté muy lan nga xam ne dañoo mentionné seen carte d'identité Pikine dëkk Kër Massar waroon a voté Kër Massar ñu mentionné Aynu Maadi ngeen di dem Aynu Maadi bureau 27 bureau vingt 27 fa ngeen dem bu ngeen demee foofu di ngeen voté partagé leen ko massivement bu ngeen demee Aynu Maadi bureau numéro 27 di ngeen voté ngeen yóbbu seen carte d'identité carte électeur bi carte carte d'identité bi moom mu ngi ci lépp ngi ci biir ngeen dem voté ci jàmm ak salaam beneen xibaar gi jëmee ci waa Sicap Mbao maa ngi ñëw ci yéen. beneen xibaar bi jëmee ci waa Sicap Mbao ñi nga xam ne seen ñi bureau 19 lañ nekk dañoo transféré fi ngeen war a voté jàmm gën. école Daaru Salaam ngeen di dem voter gars yi partagé leen ko massivement ñi nga xam ne seen mbokk lañ seen xarit wala seen rakk wala seen mag seen doom war a voter lieu bi ñu changé ko indil naa leen solution yi pour ngeen dem lieu yi ngeen war a voter képp koo xam ne da nga dem si lieu de vote ñu ne la waroo voter foofu defal vidéo nga partagé ko ñu trouver solution indil loxo ñi nga xam ne ñu ngi Kër mbay Fall lieu vote dafa bëri fii da nga ñëwoon école Kër Mbaye Fall nga waroon ñëw voter nga dem foofu noonu fe mënoo faa soit école Kër Mbaye Fall 2 ngay voté wala école Mbaaw Gaar